su ne laa jàkk moom Sëñ Tuubaa daana génn njëriñ xes pecc ba nga jàpp ne naar ba nga jàpp ne kii moom am naar bu sot moom ki saaxir ni naar di mel kooku mooy ki nga xam ne xar kanamam mala yi xàmmee nañ ko ñëpp ko xàmmee nee na daana génn ne nag xeereel teew rafet teew Sëñ Tuubaa bi nga jàpp ne xar kanam gépp bët na